asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonentam bu tedd bi doole santaat Serigne Touba ñaanal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké suñu borom doole ay leeram tax ci barkeem di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba suñ boroom yàggal ko fi te wéral ko pendant li nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba. mu ànd ko yoonu murit yëpp ñu def ko ci dim gën a selle suñ borom yàggal ko fi te wéral ko ñuy amaat mbégte di teewaat fii ci seen bu mag bi nga xam ne moom lañuy ñuy wax euh, leeral di àndaat ak yéen émission boo xamante bi fa seen yaatal lu bare bare bari man nag maa ngi tudd minicar mu Serigne Saliou Mbacke euh, ñu gën maa xam ci euh, minicar àdduna bi yëpp lañ xam Umar Gueye laa tudd mais minicar lañ gën a xam dominicar moomu Serigne Saliou moom ko tudde woon àdduna bépp nag xam ko mu amaat mbégte teewaat fii pour ànd ak yéen émission bi ci leeral. waaw xanaa di amaat mbégte rek euh, di ko ñaanal fa mu tëdd yàlla na suñu borom dolli ay leeram tas ci barkeem fukki at ak ñett yooyu nga wax euh, sëriñ bi day gën a yeesaat suñu xol mi ngi mel ni démb la fi jóge ndax boo dee xool ndaw yépp dañ koy dund euh, man de yàlla xam na ne damaa toog tey ci sama kër. ba ay huit heures du matin ma xool mbooleem ñi nga xam ne euh, ay réseaux sociaux lañ ñëpp publier Serigne Saliou Mbacke kenn ku ci nekk di wane sa mbégte ci Serigne Saliou loolu toyaat ci sama xol loolu am leen lu mu def ci man ñuy ñuy dollee bëgg rek euh, di dikkaat nag ci li nga laaj léegi mooy Serigne Saliou dongo yi Serigne Saliou dafa dafa dafa defar ndaw yu bare bare bare bare bari ndax euh, boo dee xool dafa amoon daara ju tudd xàbbaan am lagan am ñaaru am ñibingal xaban sax got la xaban ak got ñoo taxaloo am lagan am ñaaru am ñibingal am ndookaa am njàppandal am daara yu ndaw yi nga xam ne daara ju ci nekk rek euh, ñett téeméeri nit ak fukk ak ñett daje woon na fa ci daara yooyu ma lim xel koom soo ko ñëw di fukki daara ak juróom daara ju ci nekk lim boobu nekk fa tamit sëriñ Saliou yoral ñu suñu lépp euh, mboolem ñi nga xam ne dañ fa indi seeni doom di ko jox boo xasee jox sëriñ ba pare wan nga wan nga gannaaw sa doom euh, sëriñ bi li ci war lépp moo koy def moo leen di yar jàngal leen dundal leen solal leen faj leen lépp sëriñ bee ko war la woon ak dongaam yi nga xam ne mosuñoo jéggaani dara mosuñoo soxla dara te jii boo dee xool euh, donga yi nga xam ne dañ ko daan jox sëriñ bi kenn ko mës a ñëw ci sëriñ bi rek fañ la indi muy daara ji moo lay dàqal sa kër waajur nga jóge ak sa kër waajur lu mu neex neex ak la nga fa bàyyi lu mu neex neex boo xasee ñëw ci sëriñ bi Euh, daa euh, keppaaru sëriñ bi moo lay gënal sa kër waajur woowu te loolu sëriñ Saliou du ko liggéey ci ndaw yi muy liggéey bu am solo boo xamante bi euh, ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yokki leeram taasu ci barkeem. waaw loolu sëriñ Saliou doon gi mu doon sëriñ Touba lii firnde ji mooy boo dee xool li ko jox ci dong yépp kenn ku ci nekk jaar nga jaar naa ak yow foo xamante bi boo dee nettali sa diggante ak sëriñ bi day mel ni yow képp a nekkoon ak sëriñ bi loolu. matale googu yaakaar naa Serigne Saliou Mbacke rek ko amoon beneen bi ci toppit mooy yërmaande ji nga xam ne am na ko ci jaam moom sa kenn rek moo mës a taxaw ne jaami yàlla yi ku dul yàlla suñ borom mi leen sàkk ëppoo ëppoo ma ci ñoom yërmaande lool bi ko Serigne Saliou waxee ba tey déggaatoo ko ko wax euh, beneen bi ci toppit mooy li nga wax lay dikkaat mooy li nga ne diggante Serigne Saliou Mbacke ak dongo yi ak diggante Serigne Saliou Mbacke ak daayira yi fa daan ñëw ak diggante Serigne Saliou Mbacke ak ñi ci yu yi fa daan ñëw. diggante Serigne Saliou Mbacke ak daara yi Serigne bi da koo nas nas boo xamante bi daara yi daara ju ci nekk teg na fa jëwriñ yoo xamante bi yaa ko fa nekkal jëwriñ ju mat jëwriñ joo xam ne Serigne bi la yaral boppam def ci yow ay jikko yoo xamante bi eh, leer na ko ne fépp foo nekk moom nga fa nekkal tey doo fa def mukk lum la def la wut kenn ku ci nekk mu dénk la jenn daara ci daara yi kooka sam tànnaat moom it ñeneen ñu mu yar dénkaat leen ay ay ay néeg ci biir ñooñu kenn ku ci nekk ñu jox la ay quelques dong yoo xamante bi yaa leen di saytu. nga xam ne tey ji dongo yi li ñuy bari bari dongo bu ci bu ci bu ci feebar danañ xam ne dongo sàngam feebar na dongo bu ci bu ci bu ci manqué danañ xam ne dongo sàngam manqué na loolu loolu lépp Serigne Saliou nasoon na ko ba teg ko ci yoon ba nga xam ne euh, dundu beeg lépp ñu ko waroon a yóbbu waxtu ñu ko war a yóbbu ak na fañ ko war a yóbbu ak war a jëlee yépp xam nañ ko loolu nasoon na ko ba nga xam ne teg na ko ci loxoy loxo yu wóor euh, léegi digganteem ak daayira yi daayira yi kenn ku ci nekk di bàyyi ko fu ne ci biir réew mi ci bitim réew di dikk di ko siyaar si ngir lim doon doomi Serigne Touba ji nga xam ne moo mujj ci kaw suuf moo matale la Serigne Touba waxoon ci moom rek àdduna eh, bi yëpp jàngat ko daw ñëw sëriñ bi mbooloo mi li ñuy bari bari daal na leen toggal añ añ boo xam ne moo jëm ci daayira yi te it daayira yi kenn ku ci nekk dana am temps boo xam waxtu woo xamante bi dana la ubbil jëmmam ji yaatal la ba nga mën a jot ci moom àggale sa sa sab liggéey Euh, mu ñaanal leen ñaax leen ci diggéel sëñ Touba te it kàddu googu da ko daan wax lu bare bare bari daayira bu mës a ñëw mu ne la liggéey bi ngeen di liggéey yàlla na ko suñu borom nangu te boole ko ñaan yi ngeen may ñaanal ak ñaan yi ma leen di ñaanal suñu borom nangu ko te boole ñu ko muy kàddu goo xamante bi kàddu yaatal la kàddu gu matal la kàddu gu wér la digganteem ak euh, homme politique yi sëriñ bi sëriñ Saliou Mbacke bokk na ci ñi gën a xam àdduna ndax boo dee xam àdduna mooy nitu àdduna bu ñëwee seet si la Serigne Saliou dama daan wax ne dama daan gis muy def loo xamante bi loolu ba tey jii gisuma xel moomu nit yi ñii fi des ni am ko ndax sëriñ bi bu fekkente ni ab sëriñ la ñi mu bokkal sëriñ Tuubaa dañuy ñëw ci moom bu ñu fekkee moquette boo xamante bi lal nañ ko ba pare sëriñ bi du tee bu yëgee ne ñu ngi ñëw dana jël beneen moquette bu bees lu ko ca wet ga bu ñu ñëwee ba nuyoo ba toog ci moquette ba ñu fa fekk sëriñ bi laaj moquette bu bees bi lalaatal leen ko bañ xam ne lii teraanga la ñoom ñoo ko moom. muy ñi bokkal Serigne Touba nit yi àdduna yi ku fa mas a ñëw it Serigne bi daaw la daaw la imposé pour nga toog ci suuf yaa yaay am sa taalibe nang bëgg a àgg suuf te du tee mu laal la moquette ci beneen moquette ba nga fa fekk ngir taral la ko waaye bu fekkee toogaay kaw moo la gënal chaque jour Serigne bi fàggu na ab fauteuil boo xamante bi ay fauteuil yoo xamante bi ñu ngi tegee ci côté bi booy waaje ñëw sëriñ bi dana ko indilu ba mu jege la boo ñëwee ba nuyoo ko tegal ci wetam ngir nga a dend ak moom a waxtaan ak nga xam ne loolu boo dee xool ba léegi nii gisuma euh, euh, taxawaay yooyu ak Serigne Saliou fi mu tolloon ci jamono fi mu tolloon ci àdduna euh, daan daan daan fexe ba lépp tegu ci yoon rek kenn bañ a mer lépp tegu ci yoon mu sàmmal Serigne Touba njaboot gi nga xam ne moom la ko Serigne Touba bàyyeeloon ba nga xam ne tey jii macha allah loolu law na ci àdduna bi yépp boo dee xool ndaw yi kenn ku ci nekk Serigne bi defal na la loo xamante ni bëggoo ko weccoog li li sa morom am donc loolu mooy yarub Serigne Saliou Mbacke. waaw Serigne bi li ma ci marqué dafa bari. ndax boo dee xool daan gis sëriñ bi ba gisatoo ko rek loolu rek marquage la loolu rek marquage la beneen bi ci topp mooy euh, ku la mënal lu la sa ndey mënalul mënal lu la sa baay mënalul euh, daan la ko defal te tegu la benn condition kooku mel noonu boo ko ñàkkee yaakaar naa dana la marqué waaye sëriñ bi li ma gën a marqué ci moom mooy woyof gi woyof gi ci moom nga xam ne yow man mii rek bu ma yoree ñetti xale ci biir kër. ñuy samay doom seeni coow dana ma déranger yenn saa yi wala danaa xaw a énervé en tant que doomu aadama waaye yow nga dajale ay junni junni junni junni doom aadama yoo xam ne juróo ci kenn ñëpp dañ leen a jël kenn ku ci nekk ci gox yu fasantikoo indi ko jox la ko nga yor leen te it kenn ku ci nekk nga mën koo jubbanti ba nga xam ne maanaam te mësumaa gis fu sëriñ bi foo xamante bi sëriñ bi bañ na ko bëgg mu mësaa bëgg a noppalu xale yi lay ñoo koy wétali pour mu mën a noppalu léegi léegi bu daayira yi demee ba jeex day wax ne day wax ne nañ ko nañ ko nañ ko indil tuut tànk yi gën a ndaw ci xale yi ngir mu wetuli leen nga xam da ngay dem tànn fukk ba ba fukk ak nàngam jiital leen indi ko ci wetam sëñ bi daal tëjaat kees gi bàyyi xale yi ak sëriñ bi sëriñ bi di noppaliku nga xam ne boo dee xool loolu loo marqué la nga xam ne fii ku fi bëgg a noppalu yaa ngi tëjoog yaa ngi wéet ak yaa ngi ji ma dem fu soreek ku wéttali ko waaye kuy wéttali ay xale moom Serigne Saliou képp la woon ci doomi Sëñ Tuubaa yi Serigne Saliou képp la woon ci àdduna bi waaw. diggante président ab Abdoulaye wadd ñu ñaanal président Abdoulaye Wade suñu borom yàggal ko fi te wéral ko moom dey suñu maam di suñu baay di koo xamante bi mënuñ koo gis mukk te suñu xel demut Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ndax dafa nekkoon ab taalibeem euh, di di di di di di jéem a di xencu ndigal lu jóge ci sëriñ bi jëm ci moom ba mu jëfe ko Abdoulaye Wade loolu rek la yàkkamte woon. sëriñ bi safoo ko loolu maa ngi fàttaliku bi mu faloo keroog ci atum 2000 mi ngi fekk sëriñ bi daal ay jannatul maxwa sëriñ bi di ko di ko xaar ànd ànd ak mbégte lool Abdoulaye Wade ñëw ànd ak ñi mu àndal ñëw sëriñ bi safoo ko ñaanal ko ñaax ko ci liggéey bi euh, président Abdoulaye Wade dem la ko sëriñ bi digaloon mu nekk ca bokk na ci daanaka li mu fi jot a def lépp ci lu rafet da ci daan déglu xelum sëriñ Saliou Mbacké moo tax mu mënoon ko. Euh, diggante Ablaye Wade ak sëriñ bi moom wax dëgg yàlla euh, diggante bu yaatu la woon boo xamante bi ab Ablaye Wade ku ne xam ne digganteem ak sëriñ Saliou moom dañuy wax ne sax bu fekkente président yi fi mas a jaar yëpp Senghor dafa àndoon ak euh, dafa àndoon ak sëñ Fallou sëñ Abdou Lahad ànd ak Abdou Diouf Ablaye Wade moom moomeelu sëriñ Saliou lañ ko lañ ko duppee àdduna bépp loolu lañ wax ne moom la jamonanteel moo ko fi teg. te noonu la demee noonu la demee effectivement muy koo xamante bi jàmbaar la daana taxawu sëriñ bi ci fànn yu bare bare bari lépp luy bëgg-bëggu sëriñ bi taxaw na ci wax dëgg yàlla yóbbaale na sëriñ bi yóbbaale na ngërëmam daal moom président Abdoulaye Wade waaw ku ci mel ni Samuel Sarr moom daa bokkoon ci doomi xoli sëriñ bi ki nga xam ne sëriñ bi da ko daan safoo ndax Samuel euh, boo dee xool bi mu ñëwee ci sëriñ bi euh, dafa ñëw sëriñ bi boole ko ci doomi boppam yi di wéet ak moom waxtu wu nekk Samuel ñëw na ko fa gisee ak sëriñ bi waxtaan ak mu waxtaan woo xamante bii yenn yi am nañu ko fekkee waaye am na jataay yoo xamante bi mook sëriñ bi képp la yàlla sëriñ bi di ko safoo Samuel it wax dëgg yàlla amul sëriñ bi waxtu waxtu wu nekk daana ko ñëw ci sëriñ bi maa ngi fàttaliku guddi goo xamante bii Samuel dafa dafa dafa dafa départ Ndakaaru ñëw ci kër sëriñ bi bi mu ñëwee indiwut ay dàllam boobu mu ngi nekk ministre guddi moom képp mooy dawalal boppam bi ñëwee ñu laaj ko ne ko ah, waxtu yi nga ñëw guddi na di mu ne dama doon doxantu ci corniche bi rek ba ci yàgg sama xel dem ci Serigne Sall yi ma far continuer Touba donc yooyu day ay yëg-yëg yoo xamante bi ku ko am ci taalib bi bu ko am ci digganteem ak sëriñam lu mu la defar rek mérité nga ko ba tax na Samuel nu mu mel rek Serigne Sall la moom alali Serigne Sall la euh, Cheikh Amar boo dee xool moom it Serigne Sall du ko préparé pour pour pour pour njabootam préparé ko pour këram Cheikh Amar euh, àddunaam yëpp da koo jox sëriñ bi comme ni Samuel def ndax Cheikh Amar day ndaw nekk France di liggéey. di yónnee Serigne Saliou lu mu am yónnee Serigne Saliou bi yàlla dogalee ba mu ñëw ba jàkkaaru sëriñ bi sëriñ bi xamal ko la mboolem loo mës a yónnee jot naa ci waaye dama ma sa yoon nga toog fii ci dëkk bi liggéey fi euh, comme fi nga fi nga fi nga bokk say maam def fi àndoon ak Serigne bi nga ñëw ñu ànd liggéey liggéeyal Serigne bi ci liggéeyu tool yi ci la war a moo waral Cheikh Amar tracteur yeeg yooyu yëpp mu doon dugg ak machine yeeg mbay meeg yëpp Serigne Saliou ko digal pour mu dugg ci ñu bari dañuy wax waaye Cheikh Amar bi waxtaan ak moom. dugal ko ci mbayum mbay euh, matériel agricole mu ba ba tey moo ci numéro un ci Sénégal loolu lay xamal ne Serigne Saliou moom képp ku taxoo ak moom rek yemut ak ku taxawut ak moom waaw dëgg yàlla ñooñu ay tànnee fi Serigne bi lañ euh, ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoo xamante bi ñu ngi fi bari nañ trop mënuñ leen lim waaye dañ cee ñaar ñooñu rek pour. waaw président Abdoulaye Wade ba tey mooy dikkaat foofu rek moo jàppoon loxo président Macky Sall ba ci Serigne Saliou dénk ko Serigne Saliou waxoon ci wax ju rëy jooju ne ko Mbàkke damaa bëggoon nga ñaanal ko. ndax bu bu bu ma jeexalee moom laa bëgg mu wutuma ci réew mi loolu xas na dugg ci nopp Serigne Saliou Mbacke ba mu duggee ci nopp Serigne bi rek laa xam ne président ak Sall am na ndam mboolem ñun ñu tax woon ak sëriñ bi te xam Serigne bi ba mu ba ba Abdoulaye Wade waxee loolu rek la ñu daal di xam ne président moom mooy le futur président euh, euh, Sénégal Abdoulaye Wade moo ko présenté woon Serigne Saliou waaye la tax Serigne Saliou jàpp ko président Macky Sall moo ko jëf ndax boo dee xool présenté na ko waaye dafa mujj. lépp lu président Macky Sall xam ne bëgg-bëggu sëriñ bi la mu taxaw ci moom it ba at moomu ndox manqué woon Touba sëriñ bi woolu ko yónni ndaw ci moom woolu ko mu ñëw mu xamal ko ndox mi waaj tay màggal gi ndox mi kat am naa ci euh, bëgg naa mu yaatu ba daj fépp ndax comme ñëpp dañuy jóge fu ne di ñëw ci dëkku sëriñ Touba bi ngir màggal si bisam bi su ma sañoon ndox mi dana jote fépp président année boobu mu def ci lu am solo def ci ba def ci lu mënul année boobu ndox ku ne xam na ne daa bari woon Touba loolu sëriñ bi màggal gi jàllee mu ànd ak mbégte loolu woo président Macky Sall sant ko ci gërëm ko ci ak yeneen yoo xamante bi mënee su ko nettali ndax bu temps bi yaatu woon sax ñu nettali ko ci diggante président Macky Sall euh, diggante Serigne Saliou ak euh, Macky Sall Macky Sall it dafa nekkoon kenn koo xamante bi am na année boo xamante bi sëriñ bi daa am lu mu bëggoon bi mu laajtee sëriñ bi sax ci Macky la doon yónnee pour mu defal ko ko bi mu laajtee ñu ne ko Macky Sall yorut loolu waaye sëriñ bi dana ay yittee moom nañ ko waxal Macky sàll ndax lu mu ci yëg dana ko dana ko dana ko dana ko def ba def ci lu lu kawe njortam loolu sëriñ Sall yi waxoon na ko ci Macky Sall waaw Macky Sall ni muy liggéey réew mi boo dee xool tey li mu sum lu mu sumb daan ko loolu dafa am ñaar doomi sëñ Tuubaa te it wax dëgg yàlla loolu faat na ci kaw suuf mooy le seul président bi nga xam ne moo mujj a taataat ñaanu doomi sëriñ Tuubaa doomi sëriñ Tuubaa wuyu ji suñu borom ba jeex bàyyi ko fi muy doxal moom mooy mooy mooy président boobu